mu kon euh, hein, plus de poids que de mal la ñuy wax mais quand même noté neen fa euh, ay euh, blessures yu bëri affrontement yi nga xam ni itam am na li nga xam ne que moo di garde yi ak li nga xam que moo les détenus manam ñi nga tam ni itam ñoom ñoo fa daal di nekk di daal di ñëw si kanam tuuti incha allah si communiqué bi nga xam ni itam jot nañ ko naka démb mu daal jógee. administration pénitentiaire bi en tout cas révolte la bonne foofu si que prison ak camp pénal bu Liberté 6 ñi nga xam itam ñom la caabi féete ginaaw nak ñi ngi daal dénoncé jafe-jafe yi nga xamni itam ñu koy daal dunu moral nak ñu daal di affronter niki dem exactement les gardes pénitentiaires euh, ces dernières, pour les contenir, ont lancé des grenades lacrymogènes Madame, euh, garde euh, garde pénitentiaire pour daal di contenir des détenus daal di calmer moo waral ñu daal di li euh, ay gaz lacrymogène loolu nak mo egg ba ci bir chambre les gardes pénitentiaires nak non aussi d'après Sénégal li utiliser exactement ay bal blanc contre les détenus d'après information yi nga xam Tam itam Sénégal jot na niki noonu euh, euh, noté nañ vous aussi ay blessés yu bëri allant dans ce sens on nous apprend également que les autorités judiciaires sont rendues dans la ladite prison pour apaiser la tension den daal di ñëw itam ci ki nga que moo le ministre Ousmane Diagne bi nga xamni itam dem na ni daal di apaiser euh, tension bi nga xamni itam amana ni amoon na fa foofu ci ko prison li nga xamné que Cap Manuel foofu nak jamono ji li nga xam ne que moo di détenu yi la ñuy daal di ñaaw lu bokk na jafe-jafe yi nga xam ni itam ñu koy daal dund euh, jëmale seen wàllu nekkin ak seen wàllu doxalin jàpp na ni itam fu mu toll nii. il faut que nous daal le mën a xel bu baax a baax a baax baax baax par rapport ak li nga xam nekk modi di nekkine nekkin de plus en plus nak euh, mi ngi wéy di daal di xawa euh, doy wax lolu euh, ba da ci yegg don kàddu yi nga xamni tam li tuuti ñoo ko daal di yéeki en tout cas ñom nak japp nañ seen ay droit len daal di violer manam yoy defee ñu koy qualifier exactement de violation de leurs droits fondamentaux des fruits aussi ñu koy daal di effectuer exactement garde pénitentiaire pour rôle yëf yi ana fan la daal di jógee alors euh, donc sans plus tarder dañuy dañ leen daal di exactement communiquer bi nga xamni itam

Alors donc ce mercredi 19 euh, juin 2024 vers 9h, des informations faisant état d'une mutinerie au camp pénal de Liberté 6 ont été relayées dans les médias. Des vidéos et des images prises par les détenus ont circulé sur les réseaux sociaux, heurtant ainsi la sensibilité de beaucoup de personnes et particulièrement les parents des détenus man ni ko nekk li nga xam nekk mu di il faut ko fukki fan ak à ñeent seelu 2024 ay information nak mo dal jóge fo suwaanu camp bu liberté 6 dal du koy exactement si euh, média yi ay vidéo ak ay image yi nga xam itam euh, détenu yi euh, jël nañ ko foofu si que ko kaso bu li nga xam nekk liberté 6 camp pénal mu inquiéter di exactement li nga xam que moo cop képp ko fa am njaboot daal fay war a mën a nekk nii ay image ak ay vidéo yoo xam ni itam euh, jël nañ ko si biir euh,

di préciser que ni jamono ji maîtriser leen exactement euh, le personnel et que fum mu ni nii blessé euh, amu fa waye tam nous aussi ñak ci bakanam euh, lolou leen daal di yiki cependant elle rassure qu'une enquête sera ouverte pour connaître la provenance des téléphones qui ont filmé et partagé ces scènes de violence et tam japp ne jamono ji leen ben enquête pour dal di xol exactement ana téléphone yi fa la dal du kan mo fa dal di kan moko dal dugal di mëna la nga xamni tam gis nañ ko fofu Euh, sa diwaanu li nga xam nekk moo di camp pénal jàpp nañu itam téléphone amul bu waa daal di fay dugg donc su fa daal duggee rek nit moo fa daal di euh, duggale nii d'après ni par ailleurs l'administration pénitentiaire n'y euh, ñi ngi invité exactement euh, ñi kaso euh, ñi nekk si kaso bi maanaam di say détenu ñi caayu féete ginnaaw waaye ak opinion publique bi ñu respecter dispositions sécuritaires yi n'a xam ni itam def nañ ko faire fonctionner administration pénitentiaire loolu nag service de communication moo ko daal nit ki li nga xam nekk moo di démb yem ko 19 juin 2024 euh, mu nekk communiqué de presse bi nga xam ni itam démb euh, gis neen ba wookoon si li nga xam administration euh, pénitentiaire bi ñëwaat si nu mu gën a yaatoo si wàllu wunu mel donc nag mbokki spectateurs yi jàppale ni itam fu mu toll administration bi def wax na li nga xam nekk ay kàddu parce que gis aussi n'y ñi ko daal di relayer jàpp ni am na li nga xam nekk moo am ay gaañu am ay quelques trucs mais d'après les précisions de l'administration administration euh, kenn gañu aussi waaye tam kenn ñàkku si bakkanam kenn amu si gañu gañu mu nek ay précision yi nga xamni ni ñom ñoko daldi euh, allant euh, dans ce sens alors donc en ce qui concerne li nga xam nekk moo de prison batay qui ki nga xam nekk le ministre euh, Ousmane Diagne mu nek le ministre de la justice nag euh, def na benn li nga xam nekk descente euh, Ousmane Diagne nak mom ñi da déplorer li nga xam ni itam xew na foofu si ko prison bu li nga xam nekk moo Cap euh, Manuel donc cadre nga xam ni itam Ousmane Diagne indi na si si euh, ginnaaw descente bi nga xamni tam def na ginaaw quelques minutes ba tension yoy daal di éclaté sur foofu si Cap Manuel diggante que prisonnier ak li nga xamné nekk modi di garde pénitentiaire suñ ce que ce ko si yenn information mom nak euh, quitter exactement les lieux ginaaw bum mu daal di demee def ben contrôle mi rappeler aussi li nga xamné nekk modi yoy de tension mi don doon xew naka démb sa suba alors donc après les mésententes entre détenus et euh, Maton euh, les réfractaires auraient dénoncé les conditions yi n'a itam et que nous koy daal des des conditions inhumaines madame loo xam ni itam amaana ni mbala sax su rusee daal di ni non c'est daal di nekk man le ministre mm, de la justice qui n'a ramené que maudit Ousmane Diagne def na fa descente way tam mi ngi ñaawlu bu baax baax la nga xamni tam xew na fa euh, suite au violent euh, affrontement entre détenus ak ñi nga xam ni itam surveiller bo euh, kasso bi le ministre de la justice mom nak euh daanu liberté 6 mi ngi daal euh, s'enquérir par rapport ak bobu des situations mu nek une visite bo xamni tam amoon ñu bëri doon nañ ko daal xaar waaye mi tam allant dans sens apaiser tension bi nga xamni tam amoon na ñu ko prison bu li nga xam ne Cap Manuel jàpp ni itam di électricité bi manam courant bi ak li nga xamni ko modi ndox mi euh, donc fa daal li nga xamni ko modi couper euh, won coupé ben d'après benn prisonnier bi nga xamni tam mom mo moo daal wu si suñu ay naataango yu Seneweb pour rappel ben science de fouille nak manam bëgg len fouyé xool exactement euh li nek si biir et euh, tant d'autres et tant d'autres euh, moo amoon nag naka noonu yi fi daal di virer au drame euh aussi ñu fay wax aussi ay chambre ay chambre et ñee manam drogue gi nga xam ni itam ñu koy daal di koy circuler euh way itam drogue gi nga xam ni itam gis nañ ko ci matelas yi et tant d'autres et d'autres donc nak am na ñoo xam ñi ngi doon jaay drogue étant en prison loolu lépp nag ñoom dinañ si daal di indi ay

alors ñu daal di wëyel ba tey seen mission li nga xamné que Modi. midi info sur les antennes de Sénégal 5 euh, ginaaw lool dañuy daal di ñëw exactement Ce qui nga xamné que Modi. le président euh, Bassirou Diomaye Diakhar Faye alors amal na nak ben visite bu am solo daal ko tuddee exactement une visite cruciale euh, fofu si doon li nga xamné que modi France mu nekk un moment bu am solo digganteeg jokkalante ñaari dëkk yi Sénégal ak li nga xamné que modi France mu nekk déplacement bi nga xamni ni itam amaa na ni le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye amal na ko ni niki li nga xamné que muy exactement ben test crucial diggante relation yi nga xamni France ak Sénégal ñu koy daal di Dakar mu nekk ancienne euh, capitale bu li nga xamné que Afrique occidentale française le mu toll ni nak mom li nga xamné que Dakar mu senti que ni mi ngi éloigné de plus en plus li nga xamné que Paris euh, ginnaaw critique yi nga xamni Ousmane Sonko yëkki ko koy Emmanuel Macron euh, Sonko mi ngi reproché euh, Macron que ni dafa euh, si répression bi nga xamni Macky Sall Sénégal it bi ak Macron dassi ak mom de épisode nag souligner exactement complexité bi nga xamni France. Euh, ak li nga xam euh, les anciens euh, territoires coloniaux bi nga xam ni tam amaan jamono jii lu daal di jëm si en puissance extrême bu France da koy di déterminer après wala kon sax sauf que tu vois exactement ki n'a ramené que moo di Bassirou Diomaye Diakhar Faye nag dem na fa mu daal jouer bu am solo aussi si diggante moom ki nga xam que euh, maudit euh, Macron ay jokkalante yu am solo euh, ki nga xam que moo di Bassirou Diomaye Diakhar Faye nag amal ko fa fofu si ko France ou tam dem na fa pour daal di wala pas participer exactement ben forum mondial soit souveraineté souveraineté ak wàllu innovation vaccinale en Afrique féré itam ba vaccin mu daal di gën disponible fi ci Afrique moom ki nga xam que moo Bassirou taxawee son plus le président mu daal di koy def li nga xam nekk mu combat waaye te mu dal tenir aussi ben discours bu am solo euh si bobu de li nga xam que modi euh, assemblée dikki li nga xam que modi le 20 juin 2024 mu nekk benn euh, visite bo xamni tam pour la première fois Bassirou Diomaye Diakhar Faye son excellence monsieur le président du amal di genn li nga xam que modi di réew mi fekk ci aussi yeneen natangom si bobu de intervention bi nga xam amal noko le président sénégalais Bassirou Diomaye Diakhar Faye nak mi réitéré exactement objectif manam bëgg bëggum fils Afrique fexé itam ba ñu war a mën suñu bopp ci walu ko patch walu ko wér yaram fexé itam ba patch mi mu c'est di gëna a mëna a mi aussi que ni li nga xam que

créé bokk na si que Pasteur bu Dakar Benouk ni euh, euh, Afrique parce que jàpp na ni euh, récemment Covid 19 bi gis nañu ni Sénégal di taxawé waaye tam ni Sénégal aussi daal si nekkee benn que li nga xam ko modi référence donc nak moom ki nga xamné que le président Bassirou Diomaye Diakhar fay mi ngi insister ci walu wunu mel fexe itam ba Afrique gën mom bopam ci walu wunu mel donc nak gisenté nak ak ki nga xamné que moo le président français di ki nga xamné ne que moo Emmanuel Macron comme ni ñu koy gisee si boobu dañoo xam ne que moo di échange yu am solo nak ñom yàlla def surtout aussi ak li nga xamné que modi Afrique ak France naka la def li pour relation bi daal di gën a mucc ay parce que japp de plus en plus nak euh, y avait benn li nga xamné que modi, euh, justement désaccord bi bien xam tam amna am na surtout aussi euh, jëfin gi nga xamni tam amana ni France des fois mu ko daal def le Sénégal mu nek lo xamni ne itam ni ñom ñu koy daal di ñaawlu ba yegg exactement donc nak Bassirou mi ngi noonu le président de la République euh, mu daal di and nag ak li nga xam que mu di soxnaam foofu ko Paris donc nak euh, le couple présidentiel ñu ngi foofu si waanu ko France si territoire bu français bi alors nous avons eu une bataille, sur la France ak euh, toxin wi Sénégal exactement à l'Untine.